sumaleeg Sénégal match boobee daanaka teel na neex ci gone sénégalais yi nga xam ni am na ay occasion yu bari yoo xam ni gars yi dàbbar ñi na ko ngeen xool euh, occasion boobu nga xam ni bu leer la attaque de feu bu Sénégal bi am ko ab yolla ngar boo xam ne daanaka dafa mujjee euh, ca kaw la nga xam ne mooy mbalit ma donte dafa fëlate li nga xam ne euh, mooy poto droite wala poto deuxième bi nga xam ne moom la Amara Diouf nekkoon ba tey Amara mooy nekk ci li nga xam ne mooy côté ndijoor gi cabaxal yolla ngar cabax ca biir camp moom Amara mi nga xam ni dugal na bit boo xam ni bu mucc ayib di nekk meilleur joueur Sénégal ci guddi yu loolu moom mi nga xam ni moo nekk Amara Diouf di takk li nga xam ni mooy numéro 10 tamit euh, nekk loo xam ni lu gars yi bàyyi xel la tey mu nekk euh, ci équipe bi nga xam ne mooy équipe nationale Sénégal euh, boole kook lu baax li nga xam da nga koy ci équipe bi ñëpp war ko cee roy nag daanaka gars yi nga ngi koy jàppale mu nekk occasion yoo xam ne yu am solo la Sénégal kon daanaka mook suma li mi ngi koy bëgg a gaañ ñaari bal ci dara gone yi dóor nañ ko ci première mi boo xam ni neex na lool ci gone yi di xaar li nga xam ni mooy deuxième mi-temps boobu nga xam ne ci lan jub Ah, ci kanam tuuti ñu bàyyi xel loole lu ci man di tukkee tamit ci ay xibaar danañ leen ko jox ndànk ndànk benn par benn tempo tempo dara du leen rëcc ci programme boobee nga xam ne Sénégal a koy football kon bit bi moo nekk noonu ngeen gis ko mu nekk Amara Diouf di bit boo xam ne